الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الأدهية عبادة تحولت إلى عادة اجتماعية mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi sunu tomb tey mooy tabaski jaamu yàlla la woon waaye soppi nañ ko benn aada boo xam ne iccimaa yi la tey al uduhiya ibada démb day tabaski jaamu yàlla la woon waaye tey soppi nañ ko aada boo xam ne ijtimaa iya la ixwaani mata wa kayfa nuhaqiqu alfalah almatlubu minna fi ibadatina mbokki jullit yi kañ kañ ak naka la ñuy def ba li yàlla sàkku ci ñun muy jaamu yàlla ñu koy def ngir yàlla rek naka la ñuy def naka la ñuy def ba yàlla li mu sant ñu raxas ci bakkan ba mu set raxas ci aada ba mu set ñu def ko rek rek ngir yàlla loolu kañ lay nekk ixwaan yi mata nanjah fi imtihanat alxaya allati hiya maydaanul ibtila waaye naka la ñuy def ba tey ba ñu réussir nattu bi ñu yàlla di natt naka la ñuy def ba ñu mën cee génn réussir cent pour cent ci natt bi nga xam ne moom yàlla yàlla dinu natt subhanahu wa taala sunu borom ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala man yàlla maa leen natt maa leen sant ay mbir maa leen tere ay mbir sant gi pour ma xool kan mooy def te buy def ma xool lan mooy tax mu def tere gi kan mooy bàyyi ak lu tax mu bàyyi ndeke ñaar yëpp nattu la wal ibratu bil xawaatim waaye fin ba nag fa la résultat bi nekk mbir mi du def inna mimma yusghil bi ahli al ibada wa ahli al aada al yawma fi hadhihi al ayyam al mubarak udhiya udhiyatul eid tey li occupé nit ñi li ñu soxlaal ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw li soxlaal jaamukatu yàlla yi soxlaal waa aada kenn ku nekk ci ñun mooy xaram tabaski koo gis tey ci biir dëkk bi li ko teree nelaw góor la mbaa jigéen jaamukatu yàlla la wala caaxaankat la fokat la li ko teree nelaw mooy xaram tabaski ñun ñëpp looloo nu teree nelaw fa ma aksaru ma nasma fi majalisina lan atruk lizaraiya wal awlaad bila iid ay bila kafsil iid bëri na tey ci grand place ci keppaar yi ci ndaje yi ci oto yi ci keppaar yi looy dégg nit di wax ba tey bàyyiwuma xar kër ga ba tey xale yi jëndalaguma leen xar ba tey kër ga yóbboowuma fa xar mbokk yi kan moo tax ñuy tabaski ak lan moo war a tax ñuy tabaski ndax yéen borom kër yi kër gee tax ngeen di tabaski ndax yow borom kër gi kër gee tax ngay tabaski yow borom soxna si soxna see tax ngay tabaski wala doom yee tax ñuy tabaski wala dëkkandoo yi ñoo tax ñuy tabaski lan moo tax ñuy tabaski di nga gis jaamu yàlla bu jóg génne alalam ak ni alal seere boole ci ay coono yu metti ay effort yu mu fournir loolu lépp boo ko doon dajale après day nekk pund ak poussière wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura nga dégg benn waaye ne jënd naa xaru cinq cent mille kooku ne ko non yow sa xar mi dafa tuuti man 900000 laa jënde kooku ne leen yéen yéen daal keneen ne non ça va yéen ay bébé xar ngeen yor man xar 1 million laa jënd keneen tëll ne 1 million 500 waaw léegi loolu lu tax kan moo tax ak kan lañ koy defal moo tax tey tabaski nekkatul jaamu yàlla mais aada la bi mu nekkee jaamu yàlla yàlla kese la woon. xoolal fi yàlla tàmbaleeg nun bu fekkee da ngay aji mu ne la gëléem nag ngay wàcc xar kuy ngay wàcc bu fekkee ci dëkk bi nga nekk tukki woo ñu ne la kuy amoo ñu ne la xar mu jigéen amoo ñu ne la siket amoo ñu ne la sik béy bu jigéen noonu lañ ko toppee parce que jaamu yàlla la mais tey nekkatul jaamu yàlla mais aada la ak ay bidaa yu dul jeex aada ak bidaa moo nangu jaamu yàlla yi tey ci xolu doomu aadama yi leen wan ne ay aada la ak bidaa concurrence u xar yi concurrence maa gën a ngand xar ci koñ bi fan la ñu jànge ci sunna ci ban téere lañ gis bu ñu xëyee suba dañoo war a sang xar yi teg ko ci mbedd mi loolu ban ban téere la nekk danoo war a takk xar yëpp ci mbedd mi suba gis suba tabaski loolu ba ci ban diine la bokk beneen bi mooy xar yooyu buñ leen di rendi xar yi dañ leen di jàppal jàpp xar muy jàpp bu ban hadis la borom kër gu yor xaram nga gis taaw bi yor sata la ñu yëkkati tànku xar bi sotti ci mu ne day raxas pare ne day weex day sëlëm xar bi dugal loxo bi ci gémmiñ ne day raxas gémmiñu xar bi raxas bakkan bi sëlëm xar mi la ilaha illallah ana yàlla mbokk yi ana léegi jaamootunu yàlla teeno góorgóorlu xam ne yàlla moo santaane mbirum tabaski jaamu yàlla la du doom yi innal udhiya sunna ibrahima alayhi salaam wa sunnatu nabiyina muhammad afdalu salat wa azka salaam wa hiya ibadatun qadima تعبدها الله بها الامم من قبلنا ولكل امه جعلنا منسكا بقي تبسكي سنه لا سنه يننت يالله ابراهيم عليه السلام جام يالله مو تخون تبسكي جوت لول تخون ابراهيم ديف واي دو غيستال دو بوكره دو wane xarmu ngande du wane xarmu am bejjen da ngay gis sax waa joo xam ne buy waxaale nee na xar mi amul béjjén bàyyil mu dem bàyyil mu dem no man ponkalu xar laa bëgg après xanaa xamoo nit mun na rey ginaar ëppale la tiyaaba bilal muazzinu rasul xëy na bisu tabaski ndeysaan yoon dina bilal ndax tabaski nga mu ne tabaski naa de mu ne loo rey mu ne sama séq bi yonent bi ne noddukat bi rey na noddukat bi noddukat ba rendi na noddukat ba allahu akbar noddukat ba rendi na noddukat ba bilal day nodd séq day nodd fajar yonent bi ne noddukat bi rey na noddukat ba xoolal parce que loolu yàlla moo tax imma amma ñun ah déedéet xar mu rëy laay rey waaw parce que sama gore yi ñoo moom tànk yi ci kanam njëkkee yi ñoo moom tànk dañuy jàpp xar mi di ko séddale di séddale xar mi ñii ñoo moom tànk yi kii moo moom pooj bi kii moo moom dënn bi kii moo moom lee ana li yàlla moom lan la yàlla moom ci xar mi xar mi yëpp yàllaa ko moomoon mais bañ ci dugalee aada génne ci yàlla yàlla daan ñuy bàyyeeg yàpp beeg ponkalaay beeg ngand beeg dégg naa benn waaye ci rajo bi mu ne ñaari kër laa yoro foo mu ut ñaari xar léegi moom ana xaram soo amee ñaari kër nga yóbbu fee benn yóbbu fee benn léegi yow an sa xar kon yow yóbbu woo xar ngir yàlla da nga yóbbu xar ngir ko kër gi la foog ñu delluwaat xool jaamu yàlla yi lan moo tax yàlla sant ñu ko pour ñu jege yàlla la moo tax mu ne sunna ibrahima la alayhi salaam mu nekk sunu sunna yonent alayhi salaatu wassalaam mu nekk jaamu yàlla boo xam ne bañ ko tàmbalee di ko def yàgg na avant islam tabaski moo fi jiitu l'islam nit ñi jaamu nañu yàlla tabaraka wa taala boobu yàlla yónneegul yonent yàlla muhammad ci tabaski bi yonent yàlla muhammad ñëwee la ko yàlla def sunna ci moom ne ko toppal sa sunna baay ibrahima alayhi salaam yàlla ne wali kulli ummatin jaalna mansakan xeet wu nekk won naa leen naka la ñuy jaamoo yàlla mu nekk sharia في ذبه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام برم سبحانه وتعالى وقت سورة الحج آية 34 مني bëccëgi tabaski da ngeen war di tudd yàlla bi weer wi taxawee léegi dafa war a nekk bëccëgu tudd yàlla bëccëgu tasbiix bëccëgu sàbbal yàlla di ko màggal di ko jaamu ba keroog ngay xëy di rend ci sa xarum tabaski mbokki julit yi fal udhiya laysat laxman yuta li zaraiya tabaski nekkul rek xar mu ñuy rey pour waa kër gi pour njaboot gi nekkul xar mu ñuy takk ci mbedd mi di ko puukëre nekkul xar mu gën a seer nekkul xar mu gën a rëy tabaski du pour loolu tabaski xar mu ñuy rey la innama ibadatun lillahi yutaqarrabu biha almuslim ila rabbihi azza wa jal tabaski xar mu nuy rey la lan mooy sa sabab ci rey xar mi mooy damaa bëgg a jege yàlla na ibrahima defoon jege yàlla yàlla nangul ko mbokk yi ibrahima yàlla daf ko nangul te yàlla wone na ne nangul naa ibrahim ndax doomam la tër yàlla subhanahu wa taala jox ko ndigal ne ko bàyyil doom ji rendil xar mi ma jële léegi léegi aljanna kon da nga koy def ngir jege yàlla ku bëgg yàlla subhanahu wa taala nangul la fexeel nga mooy tandiku aada fexeel nga mooy tandiku ngistal fexeel nga mok mooy tandiku xew-xewu jamono yii ñu lay wax léeg-léeg say doom influencé la léeg-léeg sa soxna influencé la léeg-léeg sa xarit influencé la ba jaamu yàlla bi nga bëgg a def tiyaaba bi doo ko am lan ngay def mooy jëmm ji rek nga am am nga xar rëy na rendi nga ko fees nga ko lekk nga yàpp jeex na amaa yàlla amoo yàlla mbokk yi ku amul yàlla lan ngay am jullit bu demee ba amatul yàlla ci jaamu yàlla am lépp lu mu def coono la ci jële wala pënd ak poussière jullit boobu perte na àdduna perte na àllaaxira su fekkee sunu yëngatu yi ñuy def yàlla taxatul ay aada ñoo tax ak ay bidaa ak ngistal ak caaxaan ak warew wallahi yàlla dina ci deñ ba mu set wicc sunu borom subhanahu wa taala nee na man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada su fekkee man yàlla rek ngeen yaakaar jaamu gi ngeen di def man rek ngeen koy defal du ngeen ci boole kenn ku ngeen ma booleel ma bàyyi leen ak kooku ana agna assuraka ani shirki yàlla nee na man damaa doylu soxlawuma ñu boole ma ak kenn képp koo ma booleel ma bàyyi la ak kooku te wallahi ku yàlla bàyyee ak sa bopp nga torox nga al ko bokki julit yi tabaski jaamu yàlla la ab julit day rey xar ngir jege yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika la wa bidalika umirtu wa ana awwalul muslimin sunu borom ne seen julli yi ni ngeen di jaamoo yàlla seen dund seen dee maa ko war a moom man yàlla ndeke julli yi yàlla moo ko moom kenn moomu ko kudul yàlla waaye jaamu yàlla gi ñuy def wa nusuki rend bi yàlla moo ko war a moom waaye dund gi waaw léeg-léeg nga dégg nag ci dëkk bi ñuy woy ay woy naan su may dund ak su may dee it yaa ñuy moom waaye loolu moom yàlla moo ko moom njuumte la sooy dund sooy dee yàllaa ko moom ndax bi la yàlla di bind kenn fekkewu ko su la yàlla di rey kenn munu ci dara bés bu la yàlla di rey dañuy dem ci kilifa gi nga doon wax loolu ne ko diw dee na mu tiit ne loolu kañ la xanaa moom dafa feebaroon kon kay moom xamu ci dara kon kay moomu la kon yàlla moonu moom yàlla mooy sunu boroom moo tax mu ne wa mahyaaya dund gi dundal ngir yàlla wa mamaati dee gi yàllaa ko moom booy dund dundal ci yàlla booy dee na la yàlla rey jalla jalaaluhu wa azakamaluhu mu ne luy sa wax mooy liñ la sant mooy wa bi zalika umirt wa ana awwalul muslimin loolu lañ la digal yow ab jullit ixwat al iman wala yakunu qurba lillahi taala illa ida zubihat baada salati al iidi tabaski kan lay nekk xar mu ñu rey ngir yàlla bis boo xëyee rey ko ginnaaw ba nga julli jee tabaski ba pare am na patron yoo xam ne ay intellectuel tubaab yu ñuul léeg-léeg nga dégg leen ñu ne xar mi dañ ko war a rey bisu tabaski xëy naa suba avant 6 heures rey naa ko ah dañ koy rey rek rey naa ko déedéet yow waroo ut heure boo ko rey waroo xool yow ni mu la arrangé pour bañ a sonn wala sax sa jabar ne la nijaay bala ngay julli ji reyal xar bi ndax koñ bi ñu dëgg fi ñu njëkk fee yekk añ moo tax sunu lépp a changé sunu lépp dafa soppeeku xoolal ki nga xam ne jabaram moo tax mu rey xar mi lu tax mu rey ko parce que nee na dafa bëgg a njëkk a yekk añ rek julli fajar ñëwaat rek ñu ne ko reyal xar bi mu rey ko dañ ko utal waxtu wuñ koy rey ginnaaw julli ji sunna si la soo demee amoo droit rey lu dul imaam bi la jiite rey ba pare annoncé ne rey naa boo demee nga rey sa xar wallahi boo ko xëyee suba rey ko amoo tabaski wallahi boo njëkkee rendi imaam bi la jiite amoo tabaski kon mu ne dañ koy rey moom xar moomu ginnaaw ba nga julli jee sunna si ba pare sunu borom subhanahu wa taala moo ne fasalil li rabbika wanhar fasalil li rabbika jullilal sa borom yow muhammad wanhar soo paree nga loj sa gëléem nga rey xaru tabaski bi soo paree nga rey mu ne wa fi fadliha wa sawaabiha moom tabaski ay ngëneel yu dul jeex moo ci nekk yoo xam ne yonente alayhi salaatu wasalaam moo ko wax nee na maa amila ibnu aadama yowma nahri amalan awjab ila allahi min iraqi damin amul benn jaamu yàlla bu gën a rëy bisu tabaski bulul nga tuural yàlla deret jaamu yàlla bi gën a rëy tabaski mooy nga tëral sa xar ci kanamu yàlla daan ne bismillah allahu akbar allahumma inna hada minka wa ilayka nga rendi xar bi sooy rendi loolu ngay wax te xar mi boo koy rendi da nga ko war a jubal penku waaye xar bi buñ koy rendi mbokk yi kenn du ko jàppal beneen bi mooy suñuy rendi xar bi kenn du def benn seen langaamu ci papa ji ñëw yor paaka sëgg yaay ji ñëw jàpp ci ndigg paa bi taaw bi ñëw jàpp ci ndigg yaay ji ki ci topp tekku ci ki ci topp tegu ci ba ba ñuy egg ci caat bi ñu mel ne benn seen wala benn terrain loolu moom du sunna loolu bidaa la du diine lu ñu wax lu ñuy wax ci loolu ñu ne kaay leen ngeen jàpp ah yowmal xiyaam de bu xar bi di tëb di jéggi siraat ku ci jàppul da ngay wadd beneen bi mooy bu ñu rendee ba pare deret jooju di génn ci xar mi sobe la képp ku laal xar mi ku laal deret ji sa njàpp yàqu na da ngay jàppiwaat képp ku ko def sa jën nag bokkaale nga yàlla tabaraka wa taala képp ku jël deretu xarum tabaski def ko ci sa jë wala nga def ko ci kopp denc na nga yëg ne bokkaale nga yàlla tabaraka wa taala xar moomu araam na tifaaqan a lekk ndax xar mu ñuy bokkaale yàlla la yenent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah jàngeen ci alquran wa ma zubiha alan ala nusuk lépp lu ñu reyal xërëm aram naa lekk te képp ku rendi xar mi nga rendi woo ko ci turu yàlla yaa ngi ko rendi ci turu keneen wala ci leneen nga pare tibb ci deret ji wala nga jël béjjén yi denc ko xar moomu aram naa lekk loolu na rendi la leer ci ñun alquran moo ñu ne lépp lu ñu rendil xërëm aram naa lekk mbokk yi xarum tabaski jaamu yàlla la ay ngëneelam rëy na trop yonent bi nee na li gën a rëy ci biiru tabaski mooy nit xëy rendil yàlla tuural yàlla deret mu ne wa innahu la yaati yawma alqiyama bi quruniha wa azlaafiha wa ashaariha yawma alqiyam xar moomu ñu rey day dékki indaale béjjén yi indaale jëmm ji indaale kawar yi deret bi njëkk a tuuru balaa muy laal suuf si ci yàlla la njëkk a yegg ba pare doog a laal suuf yàlla nangul la ko yëg ne tey tuur nga deret jaamu nga yàlla lii mooy wane ne tey suñ la woon suñ la waxoon reyal sa doom da nga ko rey waaye bul ci dugal puukaree mbokk yi jaamu yàlla tabaski jaamu yàlla bu war a sell la xoolal li nga tër di ko rendi xar moomu nga tër di ko rendi lan la représenté est-ce que tey boo doon rendi sa doom di nga wax sama doom ji gën a ngandalaay rendi xoolal ibrahim qissa baa ngi ñëw ci kanam ibrahima keroog ba mu demee ndeysaan yàlla ne ko rayal sa doom ah mbokk yi rayal sa doom suñ ko waxoon tey kenn ci ñun rayal sa doom te ki la ko wax mooy yàlla ibrahima ñëw gis doom ji ne ko yaa bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara da ko laaj xalaatam ne ko doom gis naa may nelaw yàlla sant ma naa la rey loo xalaat doom ji nekk ku ñu préparé loolu tax nit day préparé doomam soo amee doom doo ko bàyyi rek muy simb nekk mbër nekk rappeur di entraîné ba ngande tol na yow nga xëy ne ko dañ laa war a rey mu ne la paa gis nga wax jooju dañ koy xoolaat te am na nu muy demee sax yow laa njëkk a kil yow waaw bis boo préparé wul sa doom ba mu nekk ponkal nga xëy naan xoolal fii rek ñi yee ñi am na ñoo xam dañuy am doom rek di ko yee jógal julli fajar këng këng këng dalaan la pa eh bu ma fa gaat ah bu ma fa gaat dégg ngeen tey ci rajo bi ki man di dóor papaam ñu tëj ko mooy émission tay bi mu ngi ci kaso bi ñu tëj parce que dafa mandi dóor papaam loolu ngay dégg léegi dóor na papaam dóor na yaayam wala rey na rey rey rey rek ndeysaan parce que nit ñi waajal ñu leen Ibrahima dafa waajal doomam wala rey ni mu mettee xale mu noona ne xaaral ma daw jël samay bagage paa bi bëgguma paa bu màgget bi kañ la ko yàlla sant bu ma amee juróom-ñeent fukki at ak nangam mu ñëw ci soxna si ko yàlla nee na nañu rey sunu doom ji mu ne ko ndigal yàlla jarul ñu ma ciy laaj ndigal yàlla jarul ñu ma ciy tàggu demal nga def li la yàlla sant allahu akbar mu jël ibrahima mu ibrahima jël ismail génn ak moom xuru màkk jëm foofu ñu naan mina fa ñuy sànnee jamra ya la waral sànni jamra mu dox ba mu sori iblis topp ne ko da ngay rey sa doom mooy mu sànni ko juróom-ñaari xeeri jamra yu njëkk mu buuse waat ba mu nekk ñett soo demee looloo fa nekk loolu lay représenté loolu tax ñi dem màkk ngeen dégg ñu ne dañuy sànni jamra ñetti yoon looloo ko waral ndeke kon jaamu yàlla la waaye du ngistal du lii xaw fii dafay représenté yàlla moo sant ab jaam jaam bi nangu li ko yàlla sant ci xol bu sedd bu féex di ko def ibrahima bu mu demee ba dëggu ne da koy def jabar ji dëggu iblis mënulu leen dara doom ji dëggu yàlla xam ne ne ñii dëggu nañ moo tax yàlla ne inna ibrahima kaana umma ibrahima rek dafa représenté benn nation ci ngëm yàlla tabaraka wa taala waaye xoolal yar na ci doomam yar na ci jabaram moo tax foog ñu préparé kër yi préparé jigéen ñi préparé góor ñi waaw suñ leen préparé wul lii am mooy da ngay wax dara ci kër sa jabar ne la loolu de mënu fee nekk yaa koy wax rek moo tax góor ñu bëri dañuy jël décision ci kër décision yi ñu koy delloo ginnaaw sa papa de lii la wax waaye loolu de lu fi am bu yeboo ngeen taxaw waaw nga ñëw ñu ne la lii mënu fee nekk waaw yow paa yow dañu yaakaar ne temps yi da ngaa góo nga am problème waaye Ibrahima préparé na këram préparé doomam moo tax bu mu ñëwee yàlla subhanahu wa taala nee na ba mu tëralee xale bi fa lamma aslama wa tallahu lil jabin naa day naahu ba mu ko tëralee ba nangu ba tëral ko yëkkati paaka bi ndeysaan li gën a daw yaram mooy xale bi da ko ne jëlal jëlal sama musa fleur yaay boobu musuwaar musóor boobu nga tag ko samay bët balaa ma lay xool nga may xool dooma mën a rendi mu takk ko ba pare mais loolu dawaat yaramam mu tourné ko ci ginnaaw ci doq bi ne da koy rendi foofu ndax seeni bët bañ a xoolant allahu akbar yàlla daal di koy woo ne ko qad sadaqta ruya wallahi dëggal nga gént ga xoola gént rek la ko yàlla waroon gént waaye yàlla subhanahu wa taala daa di musal ibrahim reyul doom ji musal doom ji rendi wuñ ko waaye mu musal soxna si reyuñu doomam parce que dañoo nangul yàlla mbokk yi kon bu nu bëggee dund diine foog nu nangul yàlla ñu génne diine aada ñu génne ci ngistal génne ci leneen lu dul yàlla gis ngeen loolu moo tax ñàkk a dugal yàlla rek ci sunu diine moo tax ñuy julli fii julli yu bari bu ñuy jullee tey ñuy julli suba ñuy julli ginnaaw suba bu ñuy defee tey jaamu yàlla tey ñuy def ko ginnaaw suba c'est parce que Sénégal dañoo lànk ne duñ jox yàlla lim moom moom kese foog ñu def ci aada foog ñu def ci bidaa dégg ngeen imaamu Dakar bi wax na ko keroog ca korite nee na ñun fii rek weer fii rek foog mu feeñ place de l'indépendance bu feeñul foofu kenn du julli kenn du woor foofu rek yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك إخوة الإيمان الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فالأدهي سنة مؤكدة لمن وجد ثمنها لا لمن يلجأ إلى سلف المحرم أو يبيع أساس وهو أسد الحاج إليه في بيته وكي سنة تبسكي سنة مؤكدة لا سنة بنو فدلي كي كوكو من كي كو منول واتنا لا أمو دروا جاي سبغا ذكر ولا ngay def lo mënul wala ngay lebi wala ngay dugg ci lo mënul amoo ci droit parce que ku mën lañ wax mënoo wàcc na la lay wan ne nit ñi ndeysaan defatuñ ko ngir yàlla mooy di nga gis koo xam ne wër na xar sax amul dañ la ne boo amul xar utile lan utile béy est-ce que gis ngeen Sénégal kuy tabaskee béy illa man rahima rabbuk parce que nekkatul yàlla kese soo de woon kenn may naa la béy bi am na fukki at nga dégg mu ne la yow da nga ma yab man rus naa yóbbu sama kër di fa rey béy kon kay yow jaamootoo yàlla yow yaa gën bilaal mi reyoon séq bilaal mi rendi woon séq kon yow yaa ko gën yaa ko ëpp martaba kon ki ko mën lañ wax bul ci togg loo mënul saa yoo gisee xar moo xam ne foq na béjjën yi mat na xar bi pattul gen gi daggul gumbawul feebarul su foqee rek xar moomu doy na la jeex na waaye xaru un million xaru trois million xaru nangam xar moo xam ne bi mu koy jënd foog télé ñëw foog journaliste yi ñëw foog ñu photo ko foog ñu caméra ko biñ ko indee ci kër gi sax balaa ñu koy rey foog nga dem loué ji benn photographe studio mu ñëw di filmer xar mi yàlla dañ na ci te loolu moo am ci sunu biir kër yi topp bànneexu jigéen ñi topp bànneexu xale yi ba jaamu yàlla bi la bi nga bëggoon dootoo ko amati léegi looy am yàpp kese li yàlla ne lan yanaala allah luhumaha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na soxlawuma béjjén yi soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret ji ragal yàlla gi la tax nga génn ci sa alal dox ba fa nuy jaayee nga jënd xar nga indi nga rendil ma ko man yàlla yàlla nee na loolaa soxla at taqwa minkum ragal yàlla waaye du ngandaay bi du puukare du ngistal du dégg leen ma du wax leen ma déedéet loolu amu ci kon sunna la ci ki ko mën koo xam ne du dugg ci li mu mënul wala yambari atabahi wa tafaaxur alal jiraan bi laxmiha amoo droit jënd xaru tabaski ba pare indi takk ko sa buntu kër amoo ci benn droit bisu tabaski lu tax ngay puukarewu ci say dëkkandoo yoo xam ne amuñu kër yi bu fekkee fanweeri kër la dañoo ran kër yi fanweeri kër la angle ba angle fanweeri kër yi yëpp daal di takk seeni xar am kër gu takkul nit ñi lu ñuy wax ci kër googu ci buntu kër gi mooy ñi amuñu trois maisons yu njëkk yi bu ñu takkee deux maisons yi ci tegu takkuñu septième beeg huitième bi takk neuvième dixième bi takkuñu nit ñi la ñuy wax ci ñii mooy amuñu kon boo amee sa xar denc ko sa biir kër soo koy rendi nga rendi ko ci biir kër gi nga rendi ko ngir yàlla su fekkee dafa xat soo jógee ba koy rendi nga indi ko ba ci biti rendi ko dugalaat ko nga bañ cee tiitaru fexeel ba mu nekk yàllaay kese bu mu nekk ay aadaaki bokkaale bul tiitaru ci dëkkandoo yi mbokk yi dafa ruslu ci ñun tey waxtu wii ñuy jaamu yàlla ñuy tiitaru di wanewu ci sunuy mbokki dëkkandoo di wane ne man nii laa toll man lii laa yor lii laa am su fekkee ne lii nga am nii nga toll lii nga yor jàppale ci ñii yonent bi nee na laysa minna man baata sabaan wa jaaruhu jaa'i bokkul ci ñun ku fanaanoo sa dépasse suba sa dëkkandoo xiif bokkoo ci ñun te yonent bi kum ne bokkoo ci ñun bokkoo ci bu yeboo nga julli bu yeboo nga woor bu yeboo nga def lu la neex bokkoo ci ñi yonent bi wax yonent waaw léegi bu fekkee am nga loolu sa lépp mat na sa dëkkandoo yi amuñu bul tiitaru seen kaw yonent bi dana woon abazar sooy togg yàpp te xam nga ne doo ci may dëkkandoo yi mu ne feesalal cin bi ba mu fees ñeex nga yekkal leen ci ñeex mi ñu unburu def ci ñu ñam ci cafaayu yàpp bi yonent bi loolu la waxoon abazar sooy togg soos sa kër xam nga ne doo leen ci yekkal te dana leen xeeñ mu ne defal ci cin bi ndox ba mu fees nga may leen ci ñeex mi waaw yow léegi mayatoo ci ñeex mi mayatoo ci yàpp bi ba pare nga koy manifesté wu di ko jubilé indi xar mi ba ci digg yoon bi daaj ngandum bant samp ko ci waaw ba pare nag yemoo ci de nga naan waa koñ bi ay mbota lañu rey yow rek yaa fi rey kuy ana yàlla xanaa xamoo yàlla mi la may yàlla yàlla moom mu ngi fi te dund gu deewul dund gu jeexagul lu ne xej na ci mën ngaa xëy tey di yërëmaate balaa suba ñu yërëm la wallahi alazim mën ngaa xëy tey di tiitaru di puukare balaa fajar wallahi alazim ñu yërëm la ñépp ñëw tiim la yërëm la parce que sunu boroom la jalla jalaaluhu kon ab jullit dafay moytandiku def jaamu yàlla yi yàllaay kese bañ cee dugal ay bànneexi bakkan ni ibrahima alayhi salaam defoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bisu tabaski li ñuy njëkk a def mu ne inna awala shay ma nabda'u bihi fi yawmina an nusalli summa narji fa nanhar li ñuy njëkk a def mooy bu ñu xëyee julli bu nu génnee ba pare li nu war a def mooy sang euh, julli suñu génnee kër yi julli lañu war a njëkk a def suñu jullee ba pare rendi bu nu rendee doog a dellu ci kër ya loolu moom loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaam waaye xëy suba jullee goo rendi loolu du diine suñu xëyee li nu war a njëkk a def mooy julli ban bis moo war a nekk julli tabaski ban bis ndax yow da ngay toog ba bis bu la neex rek nga def ko sa tabaski bopp déedéet yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na bis bu ñu taxawee arafaat ca suba sa mooy tabaski parce que ca suba sa mooy yow mu nahr mooy bés bu ñuy rey mooy bés bu ñuy sànni ji jamra mooy bés ba ñuy tawaafi kaaba ji mooy bés ba ñuy dawi safa ak marwa waaye gis ngeen ñun aada yuñ ci dugal ak bidaa yeeg topp bànneex ak topp ay tariixa topp lu kenn xamul looloo tax su yonent bi waxee au lieu ñu def dañ naan diw nee na waaw ñoom diw nee nañu au lieu ñu topp yàlla topp yonent lan la yàlla waxoon alquran atiu llah wa atiu rasul topp leen yàlla ak yonent ci alquran cent vingt cent quatorze saar yi ci alquran cent quatorze saar yi fan lañ gis topp leen yàlla ak keneen ban aaya la ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llah wa rasul atiu llah wa atiu rasul wa man yusaqiqi llah wa rasul rek amul keneen wa man yaasi llah wa rasul amul keneen même ñiy rëcc yowma alqiyam ñàkk a topp yàlla ak yonent la yowma yauddu zalimu ala yadayhi bis bu nit di matt ñaari loxoom kooku lu muy wax yaa waylata laytani ittaxastu maa rasuli sabila su ma xamoon ma jaar ci yoonu yonent bi su ma xamoon ma jaar ci yoonu yonent bi mbokk jullit yi waxtu wi jot na ñu dëpp waxtu wi jot na de nelaw yi xóot na yàgg na caaxaan yi bëri na réer gi yàgg na li ñu sori yàlla ak yonent ku bëgg a tiyaaba nag mooy koo xam ne buy jaamu yàlla yàlla rek lay xool wallahi ku dee yàgg sa bàmmeel amoo kenn koy fekk yowmal qiyaam ci biir bàmmeel ba mu ne la man mën naa fa dara amul kenn amul kenn kenn laa wax kenn amul ki gën ci nit ñi mooy Muhammad nit daa faatu Medine yonent bi sang ko ak ay loxoom yu tedd yi yonent bi sang ko ak maantoom bi mu daan jiitee juma yonent bi jullee ko bëgg a ñibbi këram doom ji ne ko il faut nga dem ci armeel yi nga suulal ma ko yonent bi dugg ci armeel yi wàcc ñu gas pax bi ba mu xóot yonent bi dugg ci pax bi ne jox leen ma ko ñu jox ko mu wàcce ko mu pare mu suul mu bëgg ñaan yàlla mu ne ko waajaa ngi safara muhammad moo def loolu muhammad moo def loolu ya- yonent bi bëgg a ñaan yàlla ne ko boo ñaanee tamit duma la ko may boo ñaanoon juróom-ñaar fukki yoon it duma baal kii te maa ngi la yëgal ku mel nii bu deewatee bul taxaw ci bàmmeelam yeex na loolu sax dafa sori misaal yooyu ana ibrahima bii ñuy wax tey papa ma ngi safara te yàlla nee na ibrahima sama xarit la nuux ulul azmi min al rusul jabaram mi ngi safara luut min al anbiya jabaram mi ngi safara kon mbir mi jaamu yàlla la du du du farak diw du mbokk ci mbooloo diw du diw samay sëriñ diw mooy sunu kilifa diw mooy sunu nangam loolu ay caaxaan la fii la yem te ku dee xam ne loolu fii la yem eggul bàmmeel eggul fenn ku nekk nag ku mu neex nag nga déggee ko nu la neex loolu laa wax eggul bàmmeel te ku dugg bàmmeel xam ne loolu yegg fa soo duggee bàmmeel liñ lay wax ki la ni kese la maada kunt taqulu ala hada al abdu muhammada amul keneen loo doon wax ci muhammad loolu lañ lay laaj yowmal qiyaam loo doon wax ci muhammad mbokki julit yi nanu yeewu nanu jaamu yàlla kese nanu dindi ay bànneexi bakkan dindi ay aada dindi farfarloo ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yàllaa ko santaane yàlla subhanahu wa taala moo ko moom moom yàlla moo ne wa ma xalaqtu l jinna wal ins illa li yacbuduun amul leneen illa li yabuduun nit ak ginne li tax ma indi leen sàkk leen wàcce leen ci kaw suuf yàlla nee na mooy jaamu léegi nag yàlla bu nee nee jaamu ma yàlla yónni muhammad ne ko demal nga wonee nu ñuy jaamoo yàlla yow nga ni doo topp muhammad am nga problème loolu mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah yàlla la ñuy jaamu muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla moo tax keroog ba mu jullee julleem gi ba pare dafa geestu sahaaba yi ne leen sallu kama raaytumuni usalli keroog ca aj ca aj màkk bu mujj bu mu mujjee aj ca arafaat ci naaj bu tàng bi ci montagne bi la yonent bi taxaw naaj baa ngi tàng ba ñaq bi di sotteeku allahu akbar yonent bi tooy xap ñaq bi di sotteeku ci kawam sahaaba yi xool ko naaj bi tàng sahaaba yi yërëm ko am kenn ku dindi kaalaam ñu daal di ko koy tiimal takk ci kaala gi ñetti ba- ñeenti bant sahaaba yi daa taxaw ku nekk ñeenti sahaaba taxaw ku nekk daal di yore bant bi ñu tiimal yonent bi alayhi salaatu salaam kaala gi ndax naaj bi wàññeeku ci moom keloog la naan sahaaba yi xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla xool leen ci man nu ñuy jaamoo yàlla kon keneen jeex na keneen koo jël nooy jaamoo yàlla wallahi perte nga aduna perte alaxira ndax keneen kooku buntam danañ ko tëj kenn du ko tëjji ku dul buntu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahuma ya musabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik insha allah bi iznillah alxamis la ñuy julli fii insha allah alxamis neuf heures et demi insha allah dinañ julli fii tabaski bi iznillahi tabaraka wa taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة